su ko jamono laajee mu génn wax tax wax ak askan bi eh, ñu koy nuyu ndaxte nag réew mi day laaj fii jafe-jafe yi toll mhm. am ay nit yu génn di leen leeral parce que fii réew mi toll heure bi eh, lu yéeme la nag mhm. ci ku xam xam nga nag eh, ñi nga xam ne xamuñu amuñu benn responsabilité buñ gàddu mhm. ay ginaar yuñ gàddu lañ ñooñu xamuñu fi réew mi toll heure bi mais ñi nga xam ne am nañ ay responsabilités yi ñu yanu xam nañ fi réew mi toll moo tax démb sorteem bi daal jàngate naa ci ne wax dëgg yàlla te tamit ay nit yum mu àndaloon lañ ci ay jamono mm-hmm. la taxoon mu ànd ak ñoom par conviction la gis gisoon na nit ñi lii ñu ma wan lu mën a doxal réew mi la naa ci ànd dem na ba ci biir nag xam ne loolu c'est des escroqueries politique ni ma koy waxee mu reculer waat taxaw wax ak askan bi nag ne leen nag bala ngeen a dugalati seen loxo na ngeen xam fi ngeen koy dugal bu baax a baax parce que concernant élection yi jëm euh, yaakaar wax na ci wax na ci tam ci boo joxe majorité da ngay xam ki nga koy jox. Mm-hmm. dem na ba ne moom sax même bu parrainage amoon bu ñu ko recalé teewul dina def na mu defoon contre Macky Sall. Mm-hmm. ndax ñii ñoo gën a yées Macky Sall. absolument loolu moom yàgg naa ko koo wax. Mm. ñii moom ñëpp xam ne Macky Sall la leen gën téeméeri junni yoon léegi nag comme jamono àgg na foofu. day laaj moom it mu taxaw en tant que leader. waaw mhm. ah, man sa sortem bi gis naa ne daal lu baax la te leeral na lu baree baree baree bare wax na ci biir tamit ne lu waaye di wax ak Ousmane Sonko na nga na nga seet sa digganteeg yàlla rek xam ne lu ko waaye wax mu nettali ko. Mhm. loolu tamit du lu du lu bees moom ah, du lu bees ñoom ñëpp xam nañ ko ndax Ousmane moom képp ku mas a wéetool même da ngeen di déeyante sax soo paree fekk ko ca mbedd ma moom ñëpp xam nañ ko muy nit koo xam ne ku jara moytu la nag ci waxtaane secret. waaw di profité di ci avertir kilifa diine yëpp wala di leen ci alerter bu ci kenn nangoo def ak moom wéet teetaatet waaw bu ci kenn nangoo teetaatet jomaay sax bu jër bu kenn nangoo bu wéet moom parce que boo wéetee moom bu ko waxee Ousmane Ousmane nettali ko nag ku ne ku mu ñëw rek dajaleel sa mbooloo mu toog muy wax ñëpp di dégg ëllëg a tax parce que bu yàggul rek lu mel ni am na fi dem nañ ci sëñ Muntaxa génn ne dañoo wéetu sëñ bi teetaatet te du xëy sëñ bi nee na manifestation ngeen ko ci kii ko bindoon Sénégal du dëgg kon yooyu lu jara moytu la mm-hmm. Bougane souligné ne ko moo tax ma rebondir ci ne kilifa yëpp nañ ci defaru Sénégal yëpp sax képp ku ciy déyanteeg ñoom daal xamal li ngay wax melal ni yaa ngi stade amitié pour li ngay wax daal ëllëg lu la ci mën a fekk

Eh, taxawal récemment demb wala barki demb eh, ngir rek ñu indi ay leral ci mbir yoyu lu ci sa jang bu doon man la dama naan ko jaru ko dama nan ko jarul jarul jarul li jarul porte plainte parce que xam nga nguur gi mom porte len plainte wala porte plainte ku nekk ci ñom lolu yak ko la porte plainte ku nekk ci ñom yak ko la. lu ñi. Mm. ñaata plainte lañ tek seen ko Cheikh Omar Diagne ngi rek. du am suite nga japp amul suite. Mm. ñaata pelante la wax lañ tek seen kaw ñoom dañoo protéger ba protéger waale seen chroniqueurs yi leen di fenal maanaam ñoom dañoo protéger ba protéger waale même golo yi ne ci réseaux sociaux yi di saaga kilifa diini sax dañ leen protéger waale commence par Cheikh Omar Diagne. Mm-hmm. ñaata plainte lañ déposé contre Cheikh Omar Diagne te communauté Mouride di communauté bu am doole ñenn ñi bokkoon ci ñu porté woon projet bii fu mujj ba tey affaire u Cheikh Tidiane Dièye porte plainte affaire euh nu mu tudd Azer jërul porte plainte mm. scandale yi am euh, nu mu tudd sax euh, fële ca port jërul porte plainte fi dal xam nga lu solution xaar élection ñew ku ne def sa devoir parce que ñi mom war nañ leen sen yoon ku bokul ci ñom mom buñ la porte plainte vite fait la ku bokku ci ñom buñ la porte plainte du mujjé fenn léegi nag ña doon wax Macky Sall day jëfandikoo justice bi ñoo ñooñu war nañ dellusiwaat baalu Macky Sall àq parce que nag àq dafa sew. lépp loo yëkkati teg ko ci deru nit rek te du dëgg di ngeen ko lijjanti ëllëg. mais abdu bu fekkente ne nii nga ko waxee euh, noonu lay demee euh, maanaam euh, yëf yi kumba am ndey ak kumba amul ndey daf caa am lay nuru te loolu bokk na ci li nga xamante ne nii dañu ko doon ŋàññ ci régime bu Macky Sall ñoom ñu ñëw def une promesse wax ni que tey bu ñu ñëwee loolu dina soppeeku est-ce que bu ñu gisee doxalin bi du mel nii c'est vrai changement am na mais rupture bi nga xamante ne nii woote nañ ko amul. waaye yow ku mën a taxaw ne Fatima ka dafa un million ma xëy takk Fatima mais ñi ñëw ci xew bi sax ñoo ma a laaj yow lan moo fi ba nga wala wala lan la woon problème bi mooy lan c'est-à-dire que sana saaxo mii ñoom ñu tuddoon ci mbirum inondation yi lëmbi mi ci et quelques milliards tey nañ ko Légui lolu est-ce que soxlawul ay explication mm-hmm. général Birame Diop mi ñu ci conseil coup d'état foncier tay ministère des forces armées mm-hmm. yow ku le général armé. nga koy souf nga far denk ko ministère ba ministère. tibbal neex jël mm-hmm. ana lolu lay légui lolu est-ce que ñun sénégalais yi amuñu droit ñu expliquer ñu lolu Nous mu Mais mais question bi do bari sax c'est-à-dire que qui est wax né de nga mm. te yow né nga alalu askan bi ci alalu askan bi doo ci caaxaan doo ci maslaa léegi nee nga kii moo doon sax sax alalu askan bi léegi ñëw nga nomee ko yow yow expliqueel nit ñi lan la lan moo ne woon problème bi mais ba tey amul benn explication am. Ah. Mm. nomee nañ ko nomee nañ ko. loolu koy kumba am ndey ak kumba amul ndey benn la loolu boo ko defee pare nga ne damay ubbi ay pôle financière loolu yàq temps la yow gas reenu ñaam bi li may wax rek bu ñu la ci yónnee buum reen yi taxutu laa jóg parce que yow ki sàcc bii nga ñu présenté ñoo ñu ko présenté. ne ab sàcc la nommé ngeen ko ba pare ne ubbi ngeen fële ab kër guy toppi sàcc yéen kay ubbi ngeen kër guy toppi sàcc waaye yéen ngi làqi sàcc kon yéen lan lan ban tànk ngeen di fecce loolu mooy kumba am ndey kumba amul ndey Mimi Touré mii génn démb bërki démb di jëfur mais ñaata milliards lañ ko tuddal bi mu jiitee fële conseil économique social léegi anam milliards ya ndax leer na ndax lijjante ni nga ba pare ba <laughs> nga nee di falaaytu falaayam di dox doxam léegi ñun lan lañ bëgg kon kumba am ndey la kumba amul ndey loolu aana jërul sax nga naan bu fekkee gis nga ko gis naa ko ñëpp ko gis lu ne fànn la kenn du ko jeex yow tamit am na ci booyam yi wax nii bu doon man maa ko wax wala keneen heure bi làq nañ la jant bi mm. commissaire Cheikhna Keita liñ ko dugale ci kaso bi mais ba àdduna mosumaa gis réew kuñ ci tëj diw ak diw dañ doon xeex te xi diw dañ doon xeex lii bu doon jamono Macky Sall kenn waxatu ko kon heure bi nit ñi universitaires yi kenn déggatu leen société civile man Sénégal bi yàgg naa amul société civile ay nit yu dajaloo woon la ay association malfaiteur yu daje woon la rek. naan waaw ñun ñoo non si. loolu yow fi malfaiteur la dajaloo rangé wu ci benn parti ku nekk na parti bi dafa bari ay bànqaas bànqaas yi jëm nii ñi naan aar lu ñu moom aar suñu moomeel fara France dégage société civile. Euh, nu mu tudd sax tuddee les universitaires. Mhm. ñoom nguuda mbub jiite ko ja loolu kese la woon mais ñëpp buñ dajaloo kër Sonko la ñuy naane ci mu ngi mel ni nga samp benn branche rek mu meññi def nii branche bi ma nga cité kër góor gi kër Sonko ñëpp fa lañ jëm moo tax ba Sonko faloo la Macky Sall doon def lu pire mi ngi koy def te kenn waxul kenn waxul ma ci profité di laajaale Oumy Ndour fan la toll ci woyofal yi parce que nag woyofal bi heure bi sonal nit ñi witt witt witt witt te na ngeen ma wëral ummi nduur ku ci man am numéro nga jox ma ni ummi nduur ummi nduur moom dina jugaat ci nii wala ci naa parce que nag mënu fi woon nekk di xeex woyofal woyofal baa ngi gën a taawee ko ummi ne pat wala signature yi jàmbur yam jëloon pétition boobu na dem ku ne ma delloo la signature sa signature loolu loolu dama ko koy yóbbante moom ummi nduur waaye aana daal pour pour pour jeexal mhm. soo bëggee dégg dëgg réew mi kumba am ndey la kumba amul ndey soo bokkee passif loo def baax na soo bokkul passif loo def du la jig lii mooy réew mi. d' accord voilà tooñ na tooñ ngeen seen bopp nag. <laughs> maa ngi ñëwaat ci yow par rapport ak euh, li nga.